et la machine euh, Askan Wi dans dans dans tout ça yaa ngi wax sànq euh, Malick Gakou depuis trois jours. dañoo waroon a wax tuuti économie programme et cetera nga bëgg ma téye ci yi rek. non man maay diriger débat bi je suis désolé. alors démb trois jours euh, gis nañ euh, Malick Gakou est stoppé Yewwi Askan bi un autre membre de Askan bi Ousmane Sonko inculpé Khalifa Sall. ngeen dàq ko xawma fan ngeen ko fan ngeen ko fan ngeen ko teg tout juste parce que dem na dialogue et puis on ne sent pas la grosse machine de Yewwi bi nga xam ne euh, teniroon na le pays en haleine euh, au mois de janvier euh, aux législatives et même et, et, et même après qu'est-ce qui se passe la grosse machine de Yewwi est toujours la mais pourquoi elle ne sa bouge non, pas non elle se bouge soudée de réunir tout le temps dans la parfaite cohésion ça je le dis parce que lu ma xam la Yewwi dafa waxoon ne dañuy ànd dem local dañuy ànd dem législatif présidentielle bu ñu amee candidature unique baax na bu ñu ko amul nañ am ay pole ku ci nekk sañ nga déclarer sa candidature foofa la ñu toll Malick Gakou déclaré na candidature am mi ngi def tournée mais ñi ngi waxtaan Déthié Fall mais ñi ngi waxtaan maman Aïda Mbodj pareil mais ñu ngi waxtaan Khalifa jël na yoonu boppam. Khalifa jëlul yoonu boppam Khalifa jëlul yoonu boppam. il est libre Khalifa jëlul yoonu boppam de. nekk ne. Khalifa Sall jëlul yoonu boppam noo ko tuddee baax na mais il est libre nangul nañ ko. mu dem non non wuti non non non Khalifa Sall jëlul yow da nga ne. du ma fa attardé wu Khalifa Sall jëlul yoonu boppam yéen a ko daal. xam nga lu tax. yéen a ne génn ngeen ko yeewi. xam nga lu tax. te moom nee na il est toujours membre à part entière de Yewwi. fa lillahi alhamdu kenn du fekk nit ci kër locataire du fekk nit ci këram di ko daax. ba tey baax na. waaw ah. ba tey baax na ba tey baax na. <laughs> Eh, ma ngay def ma ma ngay ma ngay ma ngay def ay tournée sans problème yeneen candidats yi ñun tamit noonu le président Ousmane Sonko incha allah très bientôt bu génnee lancer coalition def tuuru Sénégal. fekk parrainage yi mat na lépp mat na ñu jublu nag ci deux